defe naa ci kàddu yu gàtt rek yu mënul ñàkk bañ leen fee téye xale yi damay wax ni balaa ma dugg ci waxtaan wi su ma leen di xool damay ñaan yàlla su ma yaakaar ci ñoom bañ a tas su ma di xool damay ñaan itam yaakaaru wéjur yi bañ a tas ci ñoom ku xam fi jamono toll yéen a may dégg man du ma wax ak mag xale yi rek laay wax ndax ñii tokkal ku yàgg ànd ak sëriñ Ablaay ànd ak suñu bàyyi raan wax ñu leen di dégg mënu ma wax ak ñoom moo tax xale yi laay waxal xale yi dañu am yaakaar ci yéen dama wax ni su ma duggsee gis leen ngeen sol yu weex maa ngi am yaakaar ni seen yére yi ni mu weexe noonu la seen xol yi weexe maa ngi am yaakaar boobu

di ko yëkkateendoo di ko wàcceendoo maa ngi am yaakaar ni seeni mbir noonu ngeen koy yëkkateendoo noonu ngeen koy wàcceendoo maanaam solidarité mi ngi dox seeni diggante ni ngeen toogee ku ne jël sa mbagg muy laal sa mbagg bu maa ngi am yaakaar ni ku nekk ci yéen noonu la xolam di laalee xolu moroomam ci mbaax yaakaar boobu laa am ci yéen maa ngi am yaakaar ni su ngeen may xool may sentir ni dangeen ma wormaal da ngeen am ci man kersa maa ngi am yaakaar ni kersa bu ëpp war gu ëpp ngeen amal seeni waajur su ngeen ma gisee sëkk su ngeen ma gisee wormaal ma maa ngi am yaakaar ni war wu ko ëpp ngeen koy jox seeni waajur xale yi maa ngi ñaan yàlla yaakaar boobu ma am ci yéen yàlla bu mu